comme ni ngeen ko gisee tey la ndoxteelu euh, euh, Grand Yoff euh, jot na show bi bi nga xamante ne muy festival boo xamante ne médico culturel la culturel pourquoi parce que man artiste la donc war naa wane sama sama mëneel ci wàllum art Euh, santé parce que man Grand Yoff daf ma ñor te la santé avant tout comme ni nga ko waxee donc man sama sama objectif mooy vraiment waxtaan sensibiliser mooy waxtaan fagaru ah fagaru moo gën faju comme ni nga ko waxee pour jigéen ñi euh, xam ne euh, feebar bi ñu naan euh, cancer du sein sama maman xam na tur bi ñu koy waxee ci olof. cancer wen <laughs> cancer <laughs> voilà donc cancer wen donc mu pour ak cancer du col de l'utérus bi nga xamante ne mooy la butitu ah, ñurukaay bi voilà exactement donc pour xeex ko parce que cancer du sein cancer du col buñ ko teelee détecté c'est-à-dire buñ ko teelee gis ci nit ki donc mën nañ koo mën nañ ko faj mën na wér la preuve mooy sama maman bi nga xamante ne moom ci euh, feebar ñu ñu amoon feebar bi la